voilà mbokk yi euh, ñi ngi fii ba tey si janatu ci waañ yi fekk soxna yi ñi ngi ci xam nga rek berne yi nii di ko préparé euh, am na benn soxna boo xam ne moom ñi ngi ko fekk nii mu nekk ci euh, ci ci waal waal waalu jaga bi soxna si tur bi naka la. Aji Mbeng laa tudd. waa dëkk parcelle. Aji tey bi ñëwee ci li nga xam ni mooy màggal gi nga xam ni kii di Cheikh Béthio yàlla def na ci dogalam mu màggal goo xam ne ji wuute na ko. bi ngeen ñëwee en tant que taalibe lan ngeen yëg. xanaa triste rek triste rek xam na ne Cheikh Béthio manqué na si daal bi nag loolu la ñu yëg waaw xam nañ ne moom Cheikh manqué na fi ndax sax année daawul demee ni daane gën a neex daal waaw. tey berne yi nii ni ngeen préparé nii euh, ak euh, yenn yi bari maanaam macha allah daal. tey ceebu jën ngeen di togg. waaw ah, ceebu jën la ñuy toog suba ngeen ngeen ngeen fas yéene euh, daanal kii. waaw. suba lii rek. gàtt yi commencé xar yeeg ak gëléem yi. togg ceeb duñ lekk ceeb ba ñu. tufe tufe rek. waaw muusal rek. saf pombiteer bi teg ndale waaw lak. Euh, puuj paaj bi baa moom du manqué moom. puuj paaj bi nag. sëñ bi si yàlla daawa bi paaj. ngeen def. incha allah waaw waaw. ci loolu tey yow boo amoon euh, sa mbokki taalibe cantagoon yi euh, am kàddu yoo leen di dénk ci ni ñu gën a war a taxoo ak pasteef bi ñu war a am si yoonu sëñ bi lan lay doon. xanaa ñu doolu góorgóorlu rek waaw ñuy gërëm nag sunu ñu sunu goro lañ nekkal fii sunu goro moo moom daal bi Omar Gueye ñu di ko ñaanal gudd fan ak wér mu yàgg fi mu yàgg fi ndax moom moo ñu ñun ñëpp waaw famille lañ ñun ñëpp moo seex bi nag doom di jaax doomu bàjj lañ bu ñëwee lépp la ñu seex bi daa jox dañuy jox nag jox ñu dugg def ñu lépp waaw moo tax ren bi mu fi manqué moom yëg nañ ko bu baax xam nañ na moom seex bi manqué na fa bu baax ren moom waaw waa ñu góor góorgóorlu rek. waaw ba tey ñu ngi fii ci waañ wi rek fi nga xam ne fi la ñuy préparé berne yi fii si janatu am na beneen soxna dañ koy bàyyi mu présenté wu après moom it euh, joxe xalaatam ni mu gisee euh, màggalu ren gi soxna si nanga maa ngi fi rek maa ngi fi. Mhm. tur bi naka la. man Ndeye Baye laa tudd. Ndeye Baye euh, Ndeye yéen a ngi nekk nii ci waañ wi di préparé bernde yi lépp rek ngir jagleel ko taalibe yi mais ci loolu ban yëg-yëg nga am ginnaaw ba nga xamante ni lii mooy màggal bu njëkk sëñ bi wuute ko ci dogalu borom bi. Ah, xanaa naqar bi fi seex bi xam nga rek Cheikh Béthio bi fi jógee rek xam nga rek dal bi gis nga ambiance amul dara amul ñun ñëpp bu naqariñu comprendre nga ñu dañoo màggal sax waaye amuñu à l'aise ndax Cheikh bi daan nañ yëg bu baax suñu màggal mais ren màggal gi neexul wax dëgg yàlla ndax Cheikh Béthio dafee manqué mais nag yàlla baax na xëñ na lii la yàlla dogal. Euh, mais yéen a ngi nii nekk ci waañ wi euh, macha allah yow li nga tim nii moom daa neex na la waaw dakaar la. rimbi rimbi la. waaw. lépp ci màggal gi. waaw lépp ci màggal gi rek. lépp ci Touba. ngeen fee seen togg daal defar ba mu baax ngeen jox ko taalibe yi. waaw dañuy defar ba mu baax ku ñëw lekk macha allah. soxna ñu ngi lay sant gërëm. Euh, soxna si na ngeen ñoo euh, ngi fi. yéen a ngi fi yéen ngi préparé euh, benn yi nii bu ñu jox ko sëñ jox ko taalibe yi. waaw benn yi la ñuy préparé nii maanaam daal benn bi jëm ci jaga bi. yaa ma gën a xam daal bëggal taalibe yi rek bëggal taalibe yi rek dëgg du daal di koy def jaga rimbi rimbi nii rek dëgg du neex daal di di di di naxalu Seex bi fi jógee rek manqué nañu torop ci màggal gi xëy na la yàlla dogal yàlla baax na nag. Euh, lan ngeen di euh, bi surtout. waaw Béthio moom ñu ngi koy ñaanal moom yal na yàlla yokk leeram rek yal na yàlla yokk leeram bu baax xaare ko àjjana gën a kawe. ci barkeb sëñ Salim. jëlee na kii rek ñu ngi si euh, réaction yi soxna si moom it ñu laaj ko xalaatam nan lay yëgee màggalu ren gi tur bi naka la. nday Mareetu Mbaye. yow fan nga jógee parcelle. jam ñaajo. Euh, Ndeye Mareetu lan nga yëg ci euh, màggalu ren gi gannaaw ba ko cheikh bu wutee si ndoglu borom bi. sant yàlla rek màggal gi moom neex na waaye mënoon naa gën a neex. seex bi nekkoon. waaye yàlla baax na yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana waaye màggal gi neex na na torop gërëm maam Omar moo ñu dalal fii ñu ngi koy gërëm bu baax yàlla yàlla yokk man-man gi yëpp yàgg kaa teewe ay déwén déwén naa màggal waaye màggal gi moom neex na neex na torop di ñaanal Cheikh ko yàlla yërëm di ñaanal borom kër gi sama goro Omar Gueye di ko ñaanal yàlla xéewal gi gën a yokk màggal yii di ñëw incha allah ñu fekkee ko ñun ñëpp tatal ko xéewal gi gën a yokk ñu leen di yaanal yéen tamit yàlla na liggéey bi barkeel ah, ba tey mbokk yi ba tey mbokk yi ñu ngi fii rek eh, ci janatu eh, di barab boo xam ne ji barab bu am solo la ci yoon yoonu murit waaye barab la boo xam ne ji tamit eh, bu ñu ràññee la ci li nga xam ni mooy di 18 safar. ci loolu am nañ fi suñu beneen yaay boo xam ne ji dañ koy bàyyi mu nuyoo rek laata ñuy dugg ci laaj yi nga xam ni moom dox suñ diggante yaay booy na bi naka la. de Ndeye Ngone Guèye. yaay booy euh, ginnaaw bañ la nuyoo ba pare euh, tey bés bi nga xam ni nekk na bés boo xamante ni ji mooy màggal gi nga xam ni euh, màggal gu njëkk la ci ginnaaw bi cheikh bi sëñ Cheikh Béthio ju génnee àdduna mu nekk loo xamante ni ji tamit manqué na lool taalibe yi ban yëg-yëg nga ci am. Fatou Barakalla Cheikh Béthio dem na waaye liggéey na bàyyi fi te sunu borom bi nee na moom bàyyiwu fi kenn te ku la fi bàyyiwut du fi bàyyi kenn. fa tubaarakaala nan jéem a liggéey rek jaar ci tànkam di ko sant moom Cheikh Béthio moom tubaar fakkal la macha allah sunu bàjj na ko jur soxna maam Bambi Thiam ak ci rëkkulu Thiam a bokk ndey ak baay ci rëkkulu Thiam mooy yaay maane baal di sunub taaw Matar mii topp ci ki Omar Gueye mii topp ci moom mi ñu fi indi kër Cheikh Béthio ngi nii kër Omar Gueye ngi nii te Cheikh Béthio li mu jox Omar yàqu ko at mu jot na ñetti biis ak ñetti kaat kaat andi nu ñun nag yi ñuy lekk di naan di gërëm nag fa tabaarakàlla njabootu Cheikh Béthio lool jiital ci la soxna Mboose ak ba tóor ay sa kan ak ay da jàll soxna ay da jàllo ak njabootam gépp ñoom xaadim ak sëñ Saaliw sëñ Saaliw nag taaw boobu yan bii ko nag sunu borom bi yan yal na ko yàlla oyofal turandoo bu màgg wax di ñaanal nag sëñ Touba moom it sunu borom bi yàlla taaf na ci barke ñun ñëpp ndax moom ba muy dem ci géej gi di liggéey daa liggéey ngir yàlla liggéey ngir njabootu yàlla te yàlla fay na ko it waaw moom sëñ Touba yàlla fay na ko maami soxna Baali Muntaxa fa tabarakallah ma sha Allah soxna Baali Muntaxa moom it yàqut yoon wi de Muntaxa ci suñu borom bi moom la jox xala xilaafa gi ñun ñu ngi ci ginnaawam te liggéey na bàyyi fi moom it doxal na ko ndax seex ba ci ba mu nelawee fii ci lañ koy denc te tubaarkalla it lu topp ko ci loolu ñoo indi ko ci wetam kon nag sëñ bi ñu koy ñaanal moom it mu yàgg fi loolu dëgg yàlla waaw di ñaanal njaboot gi gépp bàyyiwuma kenn ñu njabootu Cheikh Béthio la lépp ñëpp njabootu Cheikh Béthio ndax njabootu Cheikh Béthio mooy sunu njaboot da koo xam ne gis sa bàjj la ko jur nee kon njabootam mooy sa njaboot te liggéey na bàyyi fi xale yi dinañ ko taxawee ndax am naa ci yaakaar sëñ Saliou ni ma gis mu doxee ko sëñ Xaadim ak xale yi topp ci ginnaawam am naa ci yaakaar kon nag ñu ngi ñaan yàlla ah sëñ Saalum fa tabaarakalla masalla yan bi mu desee yàlla na ko yeggale ci jàmm waaw di ñaanal nag ñëpp julliti yàlla yëpp sëñ Touba yokk nañu di ñaan sëñ Touba sunu borom bi yaatu na yaatal maa mi soxna Maali mu taxaa moom yaay nga jatu jeng mu tabaarakalla masalla suma xarit la kontaan naa trop I am very happy I am very happy to have everybody waaw.